thank you mënoo ko ko jënd wala affaire yi war naa gaaw nag de ndax man kii moom mënatuma ci moom dara nag. yow wulam leen looy ragal gis naa acheteur bu pare te instant man yaakaar naa ni yaa ngi document yi. maa ngi document yëpp amul benn problème maa ngi yëpp ñun daal nañu gaaw gis koy jënd wax yi jeex te et sax moom ñaata la wax sax ñaata la fay. waxtaan naa ci moom ba ñu déggoo ci ay kàddu. moom nee na pare na pour fay vingt millions. vingt millions. ah cinq millions nga wax de. vingt sama xol sedd na. man daa xam lu ma bëgg nañu gaaw def li ñuy def ñu dem ndax man sonn naa trop kii moom mënatuma koo sax digérer nag. bàyyi lépp sama loxo après moom neen di ñëw inspecté terre yi. Hmm. léegi bu ñëwee incha allah nga indaale documents yi man ak moom ñu waxtaan ci. nga xamante ni yow saay suñ ko joxee document yi nga def lu gaaw gaaw ñu génn dëkk bi nag ndax balaa sa jëkkër di ñu ko. loolu ma gën a sax te moom dof la instant bi soupçonné wul dara tànnu dara waxi yàlla ak yonent bi chaque jour loolu may bëgg a rey man damaa maap kooku. man am naa ni naan dégg lu mu métti métti di nga ko liggéey. dama koy gérer. papier yi daal boo ko indee ma jox ko saawaay mu xam ni instant bi ci lu wóor la nekk nga xamante ni dina am confiance am te su ko defee mu jox mi suñu xaalis ñu génn dëkk bi. yow ñu génn dëkk bi foofu ñu dem ñu jëm sax. Ah, tamit da pare nag. Oh, non est-ce que duñ xale yi moom lañ jël nag de. Dubaï nga bëgg daal wala. Dubaï moom neex na ma. problème. Oh. allah fàtte kii dina ñëw ni ma ko xamee saa yi saa yi su ma ko daan woo sax daan woon gàntu samay appel ah, terrain bu mel nii di ko am di taxawaal ah, looloo ma jaaxal. xëy na yoon bee ah. yoon bi moo war a xat mais may ko rek léegi mu yegg si. nga déggee vingt millions yooyu ba léegi sa bopp bee tëx. nu may def yow tamit. bëgg dërëm moo la sonal. ah yii dërëm moom ñëpp ko bëgg nag moom dërëm rek affaire yi tool maa yaay. oto bi daa mel ni oto la de xam naa mu ngi nii di ñëw. comprendre naa li baa nii yëpp mhm. te fii li ma ci gën a neex quoi mooy zone stratégique la boo jëlee yoon bi ak quinze minutes mën nga yegg ci ville bi comprendre nga mhm. mën nga jaax ni tempo mhm. rejoindre l'autoroute loolu na yëpp ça se joue quoi comme ni ma la wax rek zone stratégique la et terrain bi yaatu na yaa ngi fii tamit mais boo xoolee kër yi ko alentour bi sax di nga xam ni fii nii c'est habitable euh, bi yëpp defar nañ ko ndox mi courant bi yëpp a ngi ñëw boo gisee pot lampe yi sax. Mhm. waaw waaw gis naa ko et gis naa ne aussi terrain bi c'est bien intéressant mhm. et que man li ma ci ëppal solo déjà mooy accessibilité bi dugg bi ak génn bi tu vois lu ma ko faciliter xam nga rek ah. daf may gënal quoi ah. ok c'est bien intéressant ok bon dégg naa la bu baax aussi et je pense que ne terrain bi aussi c'est intéressant mhm. mais juste que temps yi dañu dégg coowal suuf du bëri bëri bëri ma bëgg xam est-ce que fii amul problème litige foncier est-ce que fu wóor ngeen teg kay yi ngeen di jaay et tout ça est-ce que daal man mën naa leen wóolu ko pour mën a jënd terrain bi. ah bien sûr loolu moom jarul gay inquiété wu benn yoon. Mhm. këyit yi yëpp man këyit këyit kër yi yëpp samay sama sama jëkkër bi moo ko moomoon. Mhm. instant bi nag dafa décédé moo tax mais pour loolu moom bu ci inquiété wu. papier yëpp mu ngi fii lépp c'est sûr et c'est légal. d'accord loolu moom doo ci am benn problème. ok léegi papier yi mu ngi ak yow. waaw est que mën naa ko vérifier. gis nga comme ni ma la ko waxee rek moom instant bi jëkkëram moo décidé mais ba muy dem daf ko légal fortune am quoi. ok kayit lépp ci turam la nekk. bu dee loolu loolu kese ay tiito foncier yooyu noonu. bu mu am leen looy tiit. certes moom mën nga méfier wu parce que dëkk bi temps yi moom. ni muy doxee. suuf léegi. comprendre nga mhm. coowul suuf dafa indi problème ci dëkk bi. comprendre naa lu fait que ngay méfier wu. tu vois léegi nag dégg naa la tamit mais yow tamit est que yaa ngi xaalis bi. su ma gisee këyit yi. waaw am confirmation. waaw te mënul nga ok. Ah, ok papier yi nekk nii. gis naa ko et bien clair lii moom amatuma dara lu ma ciy wax léegi bu fekkee tu disponible comme ça ñu ànd banque mu mën la jox xaalis bi après ñu jàll ci leneen quoi. ok loolu du problème bi day kii quoi. waaw oh, am problème. ñëw ànd ak yéen wala. yow da toog fii war a ñoo toog parce que ñun man damay war a dem Dakar après comprendre te yow boo sooree sa jëkkër yow yaa war a vérifier loolu noonu parce que bu la gisul la dina am lu mu soupçonné yow toogal fii nga lijjanti ay problème sa jëkkër kooku noonu après man su ma ñëwee naa def si. waaw d'accord loolu sax moo gën waaye kay sax ab dof la est-ce que dina soupçonné dara mais garaawul après dinaa la rejoindre foofu sax. amul problème lu mu dof dof dof yow daal toogal nga assuré mu leer na leer nañ bëgg ñoo am benn trace ndax dil bi. waaw. journée bu spéciale euh, la am ci benn deal ma lijjanti benn vingt millions xaar ma saa waay ba ni waa ji mu ngi ñëw léegi jox ko xaalis bi na benn waay bu ma yónni quoi jox naa ko benn sacoche mais sacoche bi vingt moo ci nekk mais moom xamul ñaataa nekk ci sacoche bi comprendre nga léegi de bu la ko joxee quoi da ngay jël dix-sept millions yi nga jox ko yi nga joxal ma ko xadi un million yi léegi yow dama koy jël pour ravitaillement gàlle ak yow loo ci bëgg def ko euh, dégg sofër bi su ñëwee rek su ma jotee xaalis naa la woo allah ok ne ci jàmm. kii woo ma léegi boo coupé man xool nga ma gis affaire am dafa dof wala lu ko dal e xoola bëgg naa nga del ni nga meloon de yow yu sew yi ngay def lépp ma boole li ma neex li ma naqari dëgg sama taal léegi amoon dara looy def ñëw nuyu woo ma benn jël lii dama ba xaañ quoi loolu si def trente bii d'accord léegi jógal nañ dama sama añ ma añ nga gis nga boo bëggee jàmm dañ koy wuti man ñëw fi pour de la toggal wala ma la yàq nga ut mbindaan buy nekk say besoin sama sa jot mais est-ce naa xam yow lan moo la dal yow suba ba ngoon maa ngi dëkk si di daw di lu ne ma def ko lu ne ma dugg si rien que rek nga bañ a manqué dara mais lu mu dee dee en tant que sama jabar nga jox ma tuuti cër sax. yow loo def si kër gi añ lekk ak naan ak ay facture loolu kese nga def si kër gi yow may ma sama jàmmuwaay yow xanaa loolu kese nga am si looy wax. ay yàlla baax na. mais nag eh, gis nga àdduna lu waay def boppam. bala maa dee rek bu bëgg a rey nit ñi yàlla baax na yàlla baax na yow lii ba kay gis nga góor ñu baax ñi xam nga nu ñuy def li jëndal seen jabaru ay oto yu baax di leen duggal ci kër yu baax yi yow nag loolu yépp aw ma ko ci yow nga may bëgg bala maa jooy jàmm yow bëgg a rey yàlla baax na lu ma xamul yow ku ñàkk fayda nga te li ngay wax yooyu yépp sax nag. man waxuma ko damay dem sama kër yaay te duma fa demee dañoo am réunion boo xam dinaa fa am trois jours. kan moo deewati foofu. de ñu ñaanal jàmm de kenn deewu fa sama yaay bi mu woo téléphone nee na ñu fa am réunion de famille foofu laay dem. est-ce que exactement mën naa xam yow lan mooy sa problème yow da war a sant yow amul benn yoon boo xamante ni dégg naa nga toog rek sant yàlla ci benn santé gi ñu may rek dafa doy jàmm ji chaque fois mi ñuy may loolu suturloo yow loolu doy la lan nga bëgg ci. yow xanaa déggoo ma la wax man damaa sonn wax si wax ji si boppam si laa sonn dégg damay dem sama kër laa la wax dinaa fa am trois jours loolu laa la doon yëgal rek nag. su ma daal lu fu mënta am dinaa la ko wax man maa ngi dem. kaay ma une ma laaj la lu ndaw rek laa lay laaj yow kon sa ngor may ne la gi saa nga defal ma ma man sa borom kër. man sama yoon man añ naa ko ah. est xam nga nga gis naa changement bi nga changé waaye nag jàppal ni àdduna moom comme ni ma la ko doon waxee xaaral léegi ma wóore mu xool ba xam récupéré na xaalis bi ou sinon rek caaf dina xam daal man numéro bi ma yoroon moom fan la nekk non normalement numéro bi war naa nekk sama téléphone xaaral ma vérifier daal koy woo. Salut petit frère, maa ngi ci jàmm kay et au fait temps yi li tax woowu ma leen mooy xam nga rek damay bañ ngeen may seet te deal bi ma tegoon noonu ko au temps yëpp na dama fay sama téléphone. waaw mais lu tax nga fay sa téléphone mon frère deal deal bi ngay wax man awma dégg-dégg ci deal deal c'est-à-dire mbaadu dafa am dafa am loo def. xaalis ma la jox jox nga mère bi ak xadi non je ne comprends pas xaalis. Roméo man caaxaanuma de. non non je ne comprends xaalis bi ma la jox. ba tey comprendre ma ba tey tey comprendre ma xamul fi ngay waxee de. Roméo yaa gën a xam ni man caaxaanuma jamono ji naka laa la mën a wooyu démb jox la ne la enveloppe bi maa ngi jox chauffeur bi pour mu indil la ko. sérieux ba tey xaw ma ba tey xaw ma li ngay wax quoi. Roméo yow lay waxal petit frère te nga numéro bi nga bi nga woon ce matin wala ñi nga jot a woo. Ah, ok am problème naa vérifié numéro bi. musuma dal ba damay bëgg am man mi jàppoon ne Céline man teg naa ko teg fekk na yow man rëcc ko man mi ko doon jéem teg bi man maa teg bi sama bopp ma ko woowee dinaa pipinsel tuju ko ma ko xaalis bi ñëw na ki ma woo sànq maa ngi naan maa ngi bëgg a woo pour bi ñëw ba ma denc ko mais ba léegi mënu ma ko jot som bu mel noonu di yor may toog moom fii ak sama jabar ju bëgg xaalis boobu non non lan laa sama xamul lu may dof dof ba jóg ci numéro waa ji danga koy woo numéro bi existé te man saa maa ko woo sant bi ma koy jox xaalis bi xam nga tàndawaat sama change tamit. man est-ce que lekkul de waa ji mun ma fexe ba jot ko. tuuti waay man de alku na bu woo koongu bi nga sànni vingt millions ci àll bi alku rek la mën a def ayuwaay di ba jàmm mais lenn rek laa di xamal ci àdduna gis nga àdduna lu waaye def boppam Eksik olmalı. yow moom lu doonoon say tànk. man de Aïcha laa tudd. d'accord Aïcha. Aïcha daal la jàmm. man sama kër. nit ñi de ñoom dañuy sonn ñoom dañuy sonn. ngir yàlla waaye yàlla moom chaque jour mu ngi sonn ndax nit ñi. loo bëgg a wax foofu. léegi sa terrain bi nga jaay ma ak nga koy jaayee. <laughs> xale yi léegi métier yi nga di seetaan yaa xam ne leen sama terrain. man li ma wax laa jaaxal la ay reetaan na ma trop. yow looy dee terrain. bàyyi sa caaxaan bii yoo xam nga ne amoo dara looy doyee teere laa la wax man de ay ay malaaka yaakaaroon naa ci gént dong dong laa ko mës a gisee loo foofu muñ tane ah, duma ko weeti kat ndax nii léegi maa lay ñaan nga jéggal ma rek parce que liñ fi jot wax yëpp man daf maa tiital sax man. man duma yàlla jugal nga toogaat si kaw. te gis nga sa loxo ndeyjoor benn. Tengok babi enam. Ya, kau kau dek. loolu jaaxal na ma de sama loxo bi mus na gañe combat man yëguma ko loolu combat lan la war a doon bi yaa may bëgg a jaaxal nag waaye sama question bi bu yóbboo de. sa question bi naa la ci la naa ko de. dama ni la su fekkee mën nga maa jaay terrain bi da nga wax ma ñaata lay jar. terrain bi de soo bëggee dëgg-dëgg pare ma woon pour jaay ko waaye su mi millions yu toll dërëm laa koy jaayee. waa léegi su ma la waxoon que terrain bi jaay nañ ko léegi léegi léegi léegi instant bi ma toog non loolu mënul nekk sama terrain nan lañ ko mën a jaayee te yëguma ko en plus samay papier ngi ci biir xaaral ma dem xooli samay papier te ñëw. toogal. sa néeg amul benn papier. ok maa ngi leen jox. ñu fàtte lool sax sànq nga fii nga jot benn appel mu lay wax waxi xaalis nga xaalis boobu yow ñu yaay borom te tamit sa nga fee. tàggu ni la day dem benn réunion de famille demul réunion sa jabar dafay ñaaloo instant bi kooku woowoon la sa jabar daa kumpaloo ak jaay terrain bi jox xaalis bi sa jabar nag génnagul koñ bi ba nga sa bopp koñ ba toog jaaxle nga torop man nag su ma sañoon nga dem jëli ko nga baalu ko àq te nga àndiwaat ko ci biir kër gi man damaa gën a waaru sax man li ma wax lépp lépp nekk maay lenn rek moo ma jaaxal mooy yow nan nga def ba xam lii lépp yëg lii lépp dana nekk xale bu ndaw. loolu amul importance. sama jabar moom moo génne boppam ne kër la jëm. demul kër yaayam dafa fekk ji xale bu góor nañ leen dama alku jékki-jékki gis af pantu man xam naa ne tamit waaye musuma def bon musuma def bon. lu tax nga wax dëgg. wax naa bon gis nga jooy ma lu muus moo gën ci yow te nga déglu ma bu baax gis nga xamoo leen lan la yàlla di yëpp boo jëlee jabaru jàmbur xamoo leen lan la yàlla di jël boo jaayee terrain wu jàmbur te gis nga sili sànq ba tey mi ngi mun ta ba jot man sili man xam naa ne mooy yónni man su jaay terrain jàmbur nga man kenn yónni kon yow lan moo la jaral ba nga bëgg yàq sa àdduna yàlla bu ma doon nga jéem a woo chauffeur gis nga chauffeur boobu man nii maa ko yónni mu jël xaalis bi dem jox ko borom sànq ba tey yaa ngi koy wóolu moo fexe ba jox ko. ni nga ko waxee xaalis bi yëpp dem na ci borom. te sànq ki nga doon woo nekk sa frère bi keneen nga doon woo maanaam ki woo xaalis kooku nga doon woo man mii. man nag su ma sañoon nga nekk si yoon bu moo gën nga nekk si yoon bu baax man damay bëgg a mi xaw ma damay bëgg a waar Richard boobu ba tey man maa ngi koy woo mënuma fex ba jot ko xawma ba xam kooku jox na ko xaalis bi wala déet est-ce que du batterie moo faible wala dara léegi nan laay def nan rekk laay def man mënuma dem Dakar xawma fan lañu nekk ah, ay man dil bi moom bu yàqu fu ma jëm kër ga moom duma fa delluwaat nag moom ah, bii gàcca yal na ma yàlla musal ci gàcca ay waay ah. ay man fu ma jëm tey neexuma dara yow la kan asalaamaaleykum yow la kan laa la wax lan nga fi def est-ce xam nga ci mag bu am ay bàkkaar lu muy wax nii Um. gis nga sa jëkkër ku baax la kooku nitu yàlla la kon yow lan moo la jaral ba nga bàyyi seytaane mu bëgg a ñëw yàq sa dund te lu muy wax nii yow waxi mag yi nga fi wax pour lan la gis nga li ngay wax nii sa yónnee ko ci man fekkee daa am leneen loo def nga dem def ko dégg man talu man daa am leneen lu may lijjanti yow de sa bàkkaar diis na torop ba nga xamante ni xawma sax nan laa mën a rek bàkkaaru lan xoolaatal rek lu mu bëgg a wax foofu man de su ma sañoon nga dem ba sa jëkkër dee sukk say óor baalu ko àq. baalu àq. parce que li nga def yëpp xam na ko. lan moo tax gay mooy sa jëkkër. kii lu muy wax nii eh xale day yem palaasu xale dégg nga man sax aw sa jot daa am leneen lu may lijjanti dama nga wuy seen waa kër. yow lan moo tax nga jël sa jëkkër di ko remplacer ak beneen góor. 废话。lii waay man maa ngi jéggalu de man xaw ma woon sax man dinaa dund ba gis ab malaaka ay waay wuy ma man li may def teyuma ko xaw ma sax lan laay def nii maa ngi lay jéggalu bu baax ngir yàlla

ñun xale yi si yéen lañ roy su ngeen baaxee ñu baax su ngeen bonee du bon kon nag ñun bala ñoo màgg dañoo war a poser suñu bopp kestion yi ñun est-ce que ñun li ñuy def baax na est-ce que ñun lu ñuy waaj a dugg yàlla bëgg na ko est-ce que ñun li ñuy bëgg a def nii baax na wala baaxul bu fekkee baax na nag ñu mën a dugg ci biir foofu noonu waaye ñun nag li ñuy def léegi dara baax si ak fi jamono ji toll lépp a yàqu jigéen ñi di njaaloo góor ñi di doxaan gis nga jigéen ñi yéen laay waxal bàyyi leen njaaloo parce que dañoo ni képp kuy njaaloo bu yor ma dinga ko digaaleeg suñu boroom te nag képp ku dee ba fekk ko sa biir bàmmeel di nga fa daj lu metti loolu rek nag laam ci lu ma leen di ba pare du leen fàtte du leen wax da leen aimer ak di partager samay vidéo pour ñëpp gis ko ciao ciao. ak fi jamono ji toll lépp a ñi di njaaloo góor ñi ak di partager samay vidéo pour ñëpp gis ko ciao ciao asalaamaaleykum mbokk yi man la seen doom seen rak seen xarit Aïcha tey nag dama ñëw pour waxtaan ak yéen ci benn projet bu mag a mag a mag a mag boo xamante ni dañoo war a def benn casting casting bi nag mi ngi commencé de 9 ans à 90 ans léegi nag pour projet boobu mën a dem ci kanam a kanam man tamit ma mën a avancer ci kanam maa ngi woo mag wala ndaw góor walla jigéen surtout nag ñi nga xamante ni dañu am volonté pour liggéey ak man te dëkk Thiès. ci noonu sama appel ñëpp la concerné borom teint borom teint noir yi taay fini ak jongamay maa ngi leen di xaar de comme ni ma leen ko waxee woon rek EJ nee na soxla nañ plus de cent personnes yoo xamante ni dañoo war a bokk ci sama équipe gaaw leen gaaw nag ngeen woote ci numéro bi numéro bii ma leen jox nag. mooy suñu numéro whatsapp wala rek ngeen inbox ma gaaw leen de maa leen di xaar nag. dina duma lokum mais Julie lan laa defee erreur. yow lan la xanaa waxu moon ne amoon jabar. yow xanaa waxu moon ne